ngeen ànd ceeg seen mbokk ci yàlla Baay Muxtaar Tuure Muhammadul Amin Caam moo ñu nekkal ci wàllu masin ñi ngi woon ak yow ci sorotu Kahfi xam naa daal fi ne jeexal ko moo des ndax li ci des bariwul waaw ña nga ca aaya mujj ya te fas yéene jekkale ko dañuy jeexal suñ jataay bi ci friday biñ passé muy àjjuma bi liñ doon wax rek mooy yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo weddi aaya yàlla yi wedd ne duñ dajeeg borom bi ñoom duñ jar dara fa yàlla ulaayika alladina kafaru bi ayaati rabbihim wa liqaa'ihi fa habitat amaaluhum fala nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan ñoom de duñ jar dara fa yàlla saalika jasaahum جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزءا تاي نيغي دوري ان الذين كفروا سما برام ان الذين نكا غاني نغا خامني كفروا مدينه سبحان الله امنوا ان الذين نكا غاني نغا خامني امنوا غمني وحملوا ني ديف الصالحات فرتا يا نوافل كانت نكنا لهم نيان لين تخم خم بي الله جنات هاجنا al firdawsi bay koju firdawsi jannaatu firdawsi ajjanaa firdawsi nusulan muy wàccuwaay nusulan muy berndeel xaalidiina ñi la way sax fi a ca ajjana jooja laa yabquuna duñ sàkku xiwalan ceeñ mooy wecci xanaa aja ajjana ja de ajjana ju du ko am doo ko wecci de waaw borom bi tabaraka wa taala ci alquran boo ko seetloo fépp fu mu waxee lësina këfaroo balaa yàgg nga dégg mu ne la am na ñoom ñaar rek ñoo fi nekk kii dafa lànk kii ne man nangu naa waaw yan nañu yàlla boole ci ñu nangu fu mu waxee kii dafa lànk su ma dajee moom danaa danaa wax ne waaye nag ñu nangu su ma dajee ñoom leen teral kon démb li ñu keroog aljuma dañoo jeexale woon ci ña lànkoon ba borom bi saxal ne daf leen di duma ci la isi nag aaya ne inna lazina amanu wa amilu salihat kaanat lahum jannaatu firdawsi nusula waaw te itam li ci gën a yéeme mooy xaalidiina fiha laa yabxuuna anha xiwala aljana joo xam ne amatul ceeñ xam nga ñun fii ci àdduna xéwal bu ñu la fi jox rek la ci la koy naqadi rek mooy léegi mu jeex xéwal boo fi am la koy yàq rek mooy léegi mu jeex buy wér gi yaram léegi tey xopp ñëw buy ko par tey tay ñak ñew daal dal am xewal govi mana am léegi tay rek safaan bi ñew ndax jalaal ak jamaal la fi yalla feñe mo tax wa yalla neex ak naqari la fi feñe ci kanam jaam ñi ki ci tane dal moy ki mën ag ci maqamam kamal dem tok fa kooku mum taneen ki ag ci togu kamal mom mo gëna mané mane adduna jëfé na de comme yalla mom ñaari feñu la fi def benn mu feeñoo la jalaal mooy lu métti lu naqari ay coono wala mu feeñoo la jamaal lu taaru lu neex dégg nga wala mu feeñoo la kamaal ñetti feeñuwaay yii nag moo waral xëduna neex bi waroon a neex du ko neex su neexee léegi mu naqari soo tiimee lekk gi di lekk muy neex ne neexam yàgg rek yax ñëw dugg ci put gi wala nga lekk am yàgg rek boo paree tëdd tuuti rek biir bi commencé yëngatu moom daal yëgal ne li ci neex dafay neex moom yàgg rek mu mujj mel ni sax yow bëggatula koy gis loolu moo tax neexul waaye yàlla nee ne bii ma leen di jox bi ma leen dig nii dig ko ñi gëm yàlla di def lu baax ñu ne ah mu ne ah boobu firdawsi la tudd firdawsi kooku moom laa yabxuuna anhaa hiwala kenn du ko ceeñ de waaw kenn du ko ceeñ de waaw moo tax yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne iza saaltumullaahu fasalu al firdaws isa saaltumullah fasalu fasaluhu firdaws su ngeen ñaan yàlla ñaan leen ko firdaws ndax mooy àjjana ji gën a neex àjjana dañ ko dañ ko misaal comme étage da ngay benn ñaar ñett ñeent ba juróom hmm? ba si juróom ñett ya waaw safara ond garaawoon na ci suuf la da ngay konte jëm ci su benn ñaar ñett ba juróom-ñaar hmm. ma ngoo kon nag wàccuwaay baa ngoo ci ñi nga xam ne bëgg nañ lu baax ca kaw ca kanam sama borom ne inna allazina naka gaañ nga xam ne amano gëm nañ wa amiloo ñii def asaalihaati farata yaak nawaafil ya kaana nekk na lawum ñaa leen jannaatun àjjana jannaatu firdawsin àjjana firdaw mooy àjjana ji gën a kowe rek àjjana firdawsi nusulan muy wàccu waay rek mooy seen bernde mooy seen buñaa ko suñ mbokk yi di waxee buñaa nusulan xaalidina ñu ne way sax fiyaa ca àjjana jooja laa yabquuna du wecci anaa ci moom si xiwalan ci weccee jooja xiwalan wecci de aaya bii tawhid lay wax aaya dafay feeñal ne nga xiwali yàlla yi ak tajliyaati yàlla yi ak li yàlla amal su ngeen dajee woon bëgg koo bind ngeen jël daha ngeen jël ah, ah, géej gi yëpp def ko daa géej gi yëpp def leen ko daa jël leen garab yi ci kaw suuf yépp ngeen lel ngeen lel ko ay xalima ngeen di bind du ngeen mën a jeexal xewali yàlla yi du ngeen mën a jeexal tajiliyaati yàlla yi waaw xam ne ci beneen soora sax dafay wax ne même géej googu noonu bu ngeen ko bindee ba mu jeex ngeen soppiwaat ko ceeñaat ko ba mu mat juróom-ñaari géej géeji aduna ndoxi aduna yëpp ngeen def ko diko ko damul ba muy juróom ñaari yoon ngeen jël yi aduna yi diko lel khalimba def ko ba muy juróom ñaari yoon ngeen diko ko da ngeen bind ba loolu yëpp jeex te baati yàlla yi te jëliyaati yàlla yi may yàlla yi du jeex suma borom ne qul wax leen yow yonti yàlla muhammadu ci gannaaw boo leen waxee aljana ju neex jooju dana am ku ne ma loolu moom neex na di xul wax leen ne law kaana bu nekkoon albahru géej gi mooy ndoxam aduna yëpp mi daadan di daxa li kalimaati rabbi pour ngeen bind baati borom bi pour ngeen bind tajiliyaati borom bi pour ngeen bind eh, xewali borom bi lan na fi dana mu jeex albahru géej gi géej dana mu jeex mooy daxa ji xabla an tanfada njëkk ba dana mu jeex kalimaatu rabbi baati borom sax kalimaatu rabbi xewali borom sax kalimaatu rabbi tajliyaati borom sax walaw jiinaa donte dégg nga walaw jiinaa donte dikkee ne ñun yàlla bi mislihi ke kem dong, ma madadan ci tëbbure buñ ko buñ ko dab buñ ko dabuloon sax buñ ko dabuloon sax ndoxamu na mii buñ ko dabuloon muy bëri ñi koy ñi dabul ba muy juróom ñaari yoon ngeen jël garab yoon na def ko xalimba di ko da ngeen bind ba yéen ñiy bind ak na ngeen bindee yépp far jeex yàlla des fi di yàlla te ji leen waaw xewali borom bi wa in taxudu nicmatallahi laa tuxsuha bu ngeen ko bëggoon a takk wala ngeen jël seen machine yi calcul da ngeen di calculoot xewali yàlla yi rek du ngeen mën a calculoot xewali yàlla yi seen mobile bi dana yàqu seen xel mi dana fatt te du ngeen mën a calculoot xewali yàlla yi lu tam ba aaya la moo tax boo déggee aaya bii ma ne la tawhid la mooy boo xamee ni yàlla di jàngale nii loo am ci na rek da nga gëm yàlla ne lii la dootul la jaral te ngay dugg ci loo warta dugg yàkkamte am alal du la tax ngay rey du la tax a tampon du la tax a toog dugg di ngay sàcc jël ay paaka di wër du la tax a dóor marto du la tax a dem ci marché bi di wax lu doowu dëgg parce que dana la óor ne loo xam ne du jeex fa muy jógee du jeex fa mu jëm dafa nga jot ci sa wàll balaa ngay dee ndànk ndànk famso fii manakibiha wa kullu min risqihi wa ilayhi nusur yàlla mu ne suuf sàngoog dox leen da dox ba dee du ngeen jeexal suuf waaw xiwal yaa ngi ci kaw lekk leen da ngeen lekk ba dee da ngeen dee ci ba dee te du jeex lu ci jar xaccoo bi lu ci jar xaccoo bi ndànk-ndànk ay yi ko wax bëri na am na benn waay boo xam ne yàlla daf doon wane mayam dafa dafa am may dafa wane xam-xamam dafay puugarewu mu tase benn subiyanke boo xam ne dafa am fatwu am maarifatu billaahi xay na sa njàngam sëriñ amu ne ko sëriñ bi yow dama la bëggoon a laaj xaruna bii suñ ko dajale woon yëpp ak xiwal yi fi ne xam-xam beeg may yeeg yëpp ñu dajale ko buñ ko leeralee yàlla nu muy war a toll mu ne ko loolu xam nga nu muy tollal dafa mel ni nga dem ci géej jël fa benn toq toq boobu noonu boo dugaloon pusa ci géej la cay lang ca pusa ba mu ne ko loolu mooy xëdu naag tajiliyaat yeeg may yàlla yépp la des ci géej gi nag mooy moom mooy mooy mooy may yàlla yi yi nga xam ne yow xamaloo léegi waa ji ne ko waaw bu fekkee noonu la demee li li tëq ci pusa bi mooy aduna yow léegi yow yow ak sa xam-xam bi noo em ci loola yow toq bu ko noo ci em yéen ñaar lu ngeen ci em yow yow ak sa alal ji ak xam-xam bi ak puukareewu bi yéen nu ngeen am ci biir toq booba hmm? borom xam-xam bi dafa cag dafa gëlëm dafa dafa yéeme dafa yéemu dafa yéemu ndax bu fekkee yow li ngay ndam moom lépp lépp lépp buñ ko boolee ak lépp li nekk ci aduna mu ngi mel ni toq toqab pusa ci géej léegi toq toqab pusa boobu buñ ci génnee mayee xam-xam yi nga xamut ak yi nga amut yow lepp bu wa yow ñoo war a yow dina nga bëdd ko mëna a gis sax ndax tuti way kon koy pugare woo yow nga am bay pugare kon mo tax ma wax ne bi tawhid la il faut nga baye xel bu ba alquran limi muy jàng rek foo dégg mu lepp dara rek dafa bëgg lepp wo ñu jangé ci dara waye du pour yëm ko rek sama borom ne qul wa yow yunti yalla muhammad na len law kaana bu nekkol albaharu géej gi ndoxam géej gi la ci nam midaadan di daha li li kalimaati rabbi ngir na da ngeen bëgg a bind baati sama borom wala tajliyaati sama borom wala xiwali sama borom lan na fee dana mu jeex albaharu géej waaw géej gi dafay jeex xabla an tanfada njëkk baa dana mu jeex kalimaati rabbi xiwali yàlla yi wala baati yàlla yi wala nga ne tajliyaati yàlla yi walaw ji naa donte la ñëwee nañ bi mis lii ci ki ma madadan ci tëbb de waaw madadan ci dabu waaw aaya bii li muy wax rek mooy yonent yàlla muhammad may gi ñooy wax ci alquran rëy na sa daraja ci yàlla kowe na waaye moom mu ngi bëgg a xamal ñépp ne moom nit la waaw nit la comme ñépp ni nga xamee ne gaa yi dinañ dem ba di ko laaj laaj yoo xam ne laaj yu doy waar la te nag moom nee moom nit rek la waaw nit rek la waaye nag nitam gi dafa rax ndax yàlla daf ko wóoyu ci wax yu boobu ku raw ci la la rawee ndax kiñ wóoyu kiñ déey dafay ñeme kiñ wóoyu wax wax wax di am muy am advice bu jógee ci yàlla mu am bodyguard bu jógee ca yàlla wala yaxsimuka minan nas ah ko de bu de nit dem du nit kesse kesse waaw waaw sama barana ne qul wa yunti yalla muhammad nale inna ma ana naka man yonent muhammad basarun nidla mislukum kum yende ah. man nidla kum yende. yéen de wahyu def na fi man annama ilahukum naka sen yalla ilaahun yalla bay ben man nit laa waaye damay jëlee xam-xam ca yàlla yàlla moo ma wax yu foofu la rawee ñëpp waaw kuñ dee nga ñeme liñ maa wax yu nag bokk na ci mooy seen yàlla ji kenn la yàlla kenn la mën a doon du nekk ñaar yàlla wax na ci beneen aaya bu ngeen nekkoon ñaar buñ nekkoon ñaar ñoom yàlla yi danañ séet danañ danañ ko xaccoo danañ weerante danañ kuloo xeex sax ko def ndax yàlla ji may wax na taw yàlla ji ne ko déedéet du taw de kii na ko nañ naaj mu ne ko déedéet nañ sedd kon danañ danañ danañ karaat karaate wante ñoom ñaar ba sonn de kon yàlla kenn rek lay mën a doon ne yerañ ñu jiwu xorom soo làmbee doo daj soo fóonee du la xeñ te boo làmbee loo daj mooma loo fóon mooma soo xoolee doo gis te loo yëg mooma mu nekk fi doo man ci moom dara ta moom mu man ci yow kooku mooy yàlla nañ ko bàyyi mu nekk yàlla waaye xul waxal yow yonent yàlla muhammad na leen sallallahu alayhi wa sallam innama ana naka man yonent yàlla muhammad basarun nit laa mislukum comme yéen ah, ah abdallahi ak amina ñoo ma jur màkka laa juddoo sama imaam màkka lañ juddoo waay waay waay waay man maa ngi yéen nit laa waaye nag di beneen ñëw la yu haa wax yu illa ya fi ma man dama am ku may yootal de mooy yàlla man dama am bodyguard de wallaahu yuhsibuka mina naas mooy yàlla ku dal ci kawam yàlla mooy jox annama ilaahukum maa ngeen di xamal ne seen yàlla ki leen mat yàlla ki jar ngeen def ko yàlla kii yàlla te dëgg dëgg dëgg mooy yàlla ilaahum yàlla la waaye duñ bay benn de léegi nag wax jaa nii fa man kaane ku nekk na yarjoo di yaakaar liqaa rabbihi dana dajeeg boromam fal yaamal na mu jëf amalan jëf saalihan ju baax wala yusrik bu mu bokkaale bi ibaadatihi ah bi ibaadati bi ibaadati ci jaamu rabbihi boromam aanan kenn de lii la jeexalee suura bi tax mu jeexalee ko lii dañuy dem ca lam ko ndax bañ dooree lañ ko laaj mbiram ahlu kahf prison boo xam ne dafa yà dafa passé bu mu yàgg bi bi bi bi mu passé dafa yàgg ah ñi pare ñi pare gis nga ko dina ko laajati suñu xarne yi waaw muy muy laaj yoo xam ne yu doy la nga koy laaj koo xam ne sëñ bi ah, lii fekkewut ko maamam fekkewut ko maam mataaram fekkewut ko hmm? moo tax bi muy jeexal mu xamal leen ne kaay leen ci tawhid ndoxi gii jële ndoxam suuf suñ ko defoon daxa jël xalimba garab yi def ko xalimba du jeexal may yàlla yi dégg maa ngi leen di xamal ne man nit laa li ngeen maay laaj laaj yu jafe yi ngeen maay laaj nii man nit laa bu ma leen jaaxal ci dëkk bi laa juddoo waaye nag dama am ku nekk ci sama gannaaw di ma yootal yéen déggu leen ko man ki maa waxal mooy yàlla bari gàtt mooy yàlla te duwut seen xërëm yi ma jàkkar de waaw duwut duwut xërëm yi ci kaaba gi de du loolu yàlla ji kenn la ku yaakaar nag te dëggal ne danga nga dajeeg moom da góor góorgóorlu de da nga góorgóorlu de bu boobaa lépp lu la yàlla may nga delloowaat ko ci yàlla te itam nga mooy nag bokkaale kon gis nga baat yi mu mujjee moo tënk dinaa nit ki mooy fexe ba mucc ci taw waaw fexe ba mucc ci bokkaale yàlla fexe ba mucc ci bokkaale yàlla te dugg ci tawhid loolu laa bëgg a wax fexe rek ba mucc ci bokkaale ak yàlla te dugg ci tawhid sama borom ne fa man kaana ku nekk na yar joo di yaakaar dégg nga liqaa rabbihi ne dana dajeeg boromam waaw fali yaamal na mu def amalan jëf saalihan ju baax na góorgóorlu de wala yusrik bu mu bokkaale bi ibaadati ci jaamu gi rabbi boromam aadam kenn de jaamu gi muy jaamu boromam bu ko bokkaale ma ngoog kon saaru kahfi mu ngi noonu li ibrahima laaxa ilaaluhu هلال البدا للناظرين جماله